fu dul garage boo demee Colobane nga dem pompier euh, pas pompier nga dem Cambérène nga dem nga dem Padois ba tey da ngay gis nit ñi taxaw di di di di def interurbain ngay taxaw tey jii buntu Padois ñun la foo jëm Saly nga jëm wala Kaolack ñun la oto bii mooy dem te pourtant ñoom dañu ni woon ci seen ay ci seen euh, communiqué que dañuy def le tout ba oto di jóge ci bar euh, garage bi nga xamante ne mooy boo maraîcher donc mbir mi yaakaar naa ne boo xasee ba jël ay mesures d'accompagnement boo ko respecté wul sa mesure d'assouplissement yi dootul amati njëriñ boo niwee nit ñi bu ñuy dem sport di encadré woo ko bu nit ñi feebaree yow yaay le responsable bu ñu ah. nit ñi dañu manqué de responsabilité parce que yaakaar nit ñi bu ñu mënoon téye bopp am responsabilité bu mat boo xamante dañuy mën a aar seen bopp yaakaar naa duñu soxla état donc ñi nga xamante ñoom ñoo jël ay mesures nañu fexe ba mesures d'accompagnement yooyu mu ànd ñu respecté ko parce que bu ñu ko respecté ëllëg euh, musiba rek la indi au moment ñu ni ñu euh, dépassé nañu euh, capacité fàtte ni man. damay tëdd ak quatre ba bu ñu ma hospitalisé kër fan nañuy fanaan xanaa ñun ñëpp nañu boole hospitalisé ndo la grande question la grande interrogation muy prise en charge extra hospitalière yu ñu def mais justement dama bëgg juste nga revenir par rapport ak président de la République da nga yàgg wax ni que euh, moom mooy euh, euh, chef de le protéger tey ñu dégg ne a été en contact ak kenn ko coronavirus même si effectué na ay tests qui sont revenus négatifs qu'est-ce que tu peux xam la moo gën a garaaw ci réew oto bu amul frein te oto bi ñu yor amul frein. du laisser de. te oto bu amul frein tu connais ses conséquences ku ne mën na si gaañ te moo ñu dal suñu réew bi oto bi ñu yor amul frein moo tax tey le président et devenu un cas contact cas contact la li <laughs> ñuy wax c'est un cas contact le président et c'est dommage parce que mesures yi ñu waroon jël dispositions yi ñu waroon jël yi ñu waroon teg sur place pour combattre pour combattre ce virus malheureusement baaxul d'ailleurs va au ministère de l'intérieur il y a des cas mm-hmm. moo tax ñu ngi jaale waale le secrétaire particulier du ministre de l'intérieur mi nga xamante ni ne dafa wàcc liggéey ba pare waajuram wàcc liggéey yal na ko yàlla xare àjjana di si gaale wàlle mais ñun ñëpp aujourd'hui même le ministre de l'intérieur est devenu un cas contact quand au niveau du ministère de la justice est devenu un cas contact et pourtant ñun ñëpp c'est des pièces maîtresses dans ce combat mais si aujourd'hui le général est ni un cas contact waaye ñun fan lañ jëm ñun <laughs> que quelqu'un qui devait être sécurisé kii quelqu'un ki devait être protégé parce que un général aussi il faut le protéger. moom moo war a ñëw en dernier ressort. bu ñëwee nag ba maintenant ñu touché ko waaye léegi ñu fa la ñu jëm lii lañ doon bañ moo tax nee ne évaluation dafa baax stratégie dafa baax bañ a dugg ci ay tâtonnement ay saupoudrage ay yëfu caaxaan moo ñu dundal tey li ñu dund nii tey virus bi tey mu neex mu yi amul benn sénégalais tey ku yaakaar ne tey pandémie baa ngi fi. ku tey foo mënti dem lu la neex la ñuy def kenn respecté tul mesure personne ne respecte les mesures mais pourquoi parce que dafa am relâchement de la part de ceux qui nous dirigent maintenant mhm. fi ñu tol Macky ne peut il faut qu'on l'aide ah non non non non il faut le secourir parce que c'est notre pays il faut faire revenir le ministre le le le euh, comment dire le poste de premier ministre. Uh-huh. c'est normal il faut mu ñëwaat parce que fi mu imaginer tey. la situation du pays président bi ngi ne la il a été mis en quarantaine amatul kenn ku mën a jël ay il est dans son coin. oui mais il a été mis en quarantaine mais terewul terewul terewul ne que euh, justement état baa ngi fonctionner. non non non l'état ne fonctionne pas nee ne nee ne l'état ne fonctionne pas il faut qu'il y ait quelqu'un mais c'est le chargé de la présidence qui l'a dit. l'état ne fonctionne pas. il y a un comité de suivi qui est là. qui fait son travail mais l'état ne suit pas et c'est il faut faire revenir le poste de premier ministre. Mmh. mais aussi Macky xam na ne il y a un échec de la part de ceux qui sont qui ont en charge véritablement cette guerre qui est là. dañu il y a un échec. d'accord cet échec nag doit le pousser aujourd'hui uh mmh. -huh. à procéder à un remaniement. xool ay nit yu baax ñu mën a gérer situation bi ñu mën ko génn dans cette situation. d'accord nee na tu peux concevoir actuellement. Mmh. que à l'aéroport qu'on prend trente hectares. ñu jox ko la disposition de la caisse de dépôt et de consignation pour à la à la recette de 60 milliards alors que yow tu as am nga un fonds pour pour pour pour combattre ce virus là un fonds Covid 19 de 1000 milliards. c'est parce que il y a problème. ci loolu ma dem ci <laughs> Cheikh Omar Talla parce que ñu ngi koy wax avant même Omar Faye euh, euh, di ko di ko souligner euh, peut-être naroon nañ ci ñëwaat par rapport justement ak suppression poste premier ministre ñu bëri ñu ngi jàpp ne que peut-être tey jii nous sommes rattrapés par ce fait même si jot nañu kii di chargé de com de la présidence buy wax ne que lii dal président Macky Sall ba mettre en quarantaine même si bu fekkee du dara ça n'empêche pas état di fonctionner nu mu war a fonctionner. waaw mais xam nga. bi ñu fi defee suppression poste premier ministre moi j'avais sama analyse dama leen waxon c'est pour des raisons politiques parce que question dauphinat loon doon régler pour des problèmes intra-parti parce que boo amee parti y a Alioune Badara Cissé y a Mimi et cetera et il voulait faire le vide autour de sa personne mais tey un premier ministre c'est une coordination boo xamante ni moom mooy coordonner l'action du gouvernement il permet d'alléger le président il permet de déléguer des tâches il permet mu jouer benn rôle mais tey le fait que waxumal sa ay affaire corona mais tey centralisme d'état boobu am le premier ministre existé tul tout revient au président de la république et loolu bokk na si lu koy affaiblir et tey je man suma président day am fusible parce que bu liggéey amul wala coow su amee booy xool bu ñu nee remaniement ku ñuy njëkk di ni premier ministre parce que moom mooy nekk ki koy protégé mais en supprimant le poste de premier ministre c' pour des raisons politiques c' était pas pour faire des réformes institutionnelles ou pour fast track bi ñu doon wax mais tey on a remarqué que euh, yàgg nañ am premier ministre di ko dindi à chaque fois ñu dindi ko indiwaat ko mais cette fois si Euh, croix de retransmission comme oto Omar Faye comme il parle mécanique boo dindee croix de retransmission bi da ngay indi benn benn benn jafe-jafe et le président est isolé et esselé d'ailleurs quand il fait l'objet d'attaque bëriwul sax ñoo xam ne dinañ génn pour mun ko défendre tout à l'heure euh, yenn postes yi ministre de la de l'éducation nationale sur certaines questions il devait sortir wala ay techniciens am génn sur la sur la question de l'eau ou bien sur la question de la santé mais on prend des yóbbu leen euh, au four comme nag moom moo dindi poste premier ministre eh bien xeer yëpp ci kawam lay dal amul ko ko protéger et il est scellé et scellé

bon voilà donc euh, nous avons suivi xool nañu ah li population yi surtout personnel de santé bi li ñu doon wax mais aussi il faut ñu comprendre que ne dañu nekk ci benn période de pandémie mhm. pandémie boobu dafa am euh, loo xam ne li da koy indi en terme de psychose c'est les personnes soo xoolee tey boo jëlee kaaw particulièrement personnel de santé yi mais personnel de santé yi boo déggee même le discours du président de la république bi mu mujjoon wax dafa wax ne en place benn dispositif spécial rien que pour les personnels de santé pour jéem leen protéger parce que faut que nit ñi comprendre que personnel de santé boobu tey moom mooy suñu dernier rempart ñoom maanaam bu doon tey dañu ne dañuy dem guerre ñoom mën nañu wax ne ñoom ñooy fantassin yi nga xam ne ñoom ñooy dem song pour protéger déjà population yi tey bu dee ñooñu dañu atteindre kon fan la population yi jëm moo tax tamit tey bu ñu demee ba ñu seetlu ne ñoom protection bi nga xam ne moom lañ doon xaar ci état bi gisuñu ko c'est normal que ñu taxaw laaj plus de moyens parce que aujourd'hui man dama jàpp ne même analyse bi ñu doon def sànq par rapport à la pandémie en tant que telle Sénégal ñaari problème la benn bi mooy problème de stratégie la beneen bi problème de communication su ma tàmbalee par communication c'est-à-dire que aujourd'hui euh, même boo jëlee le personnel de santé ak notamment l'équipe qui gère cette pandémie là euh, vocable yi ñu indi ak maanaam euh, euh terminologie bi ak yooyu même nit ñi deñ siy réer tantôt maa ngi dégg Omar muy wax ne cas contact président alors que ñoom si seen définition xam nga cas contact mooy ku am feebar bi ba pare amee ko si euh, koo xam ne dafa dafa contacter ku ko ku ko amoon cest à dafa am à bi ma bëgg dafa am cas contact à côté de cas contact ñu am cas communautaire. cas communautaire mooy ki ko am cas contact mooy cas contact. non j'explique j'explique cas ah. euh, jii euh, Cheikh Omar. cas contact lay nekk parce que on a été en contact fii fii li contact définition bi. Hmm. définition boo xoolee seen statistique journalière yi ñuy def bu ñu ne ka communautaire mooy koo xam ne am na mbas mi mënuñ la wax fan la ko jëlee. voilà xam nga loolu leer mhm. suñ la nee ka contact nag mooy ki nga xam ne am na mbas mi mais xam nañ fan la ko amee. Mhm. il était mën nañ def le le tracking. est-ce que vous voyez bien. mais c'est avéré que bi ñu defee analyse am na alors que bon boo jëlee information yi nga xam ne moo génn dañu ne président dañ ko mettre en quarantaine mais jusque là waxuñ ne dañ ko testé positif. Ah. donc y a une différence ah. alors pour dire que loolu yëpp mooy. ñoom en termes de communication dañu ab dañu. nekk ci statistiques yi nombre de temps personne kii alors que pour moi la communication c'était plutôt une communication de guerre pour bloquer population monter leen à à à bloc war leen ne attention nañ xeex corona bi nañ éviter lii évi éviter boobu aussi da nga koy sentir ci discours du président parce que bi muy mujjee génn mais man j'ai pas compris que soo jëlee la première sortie bi ñuy am 4 cas ñu jël des mesures yu nga xam ne c'est des mesures fortes bunkériser bi bloqué alors bu ñu demee donc ba kaay di yokku li xel mënoon nangu kon mooy peut-être dañu waroon dem def des mesures encore plus importante wala même bu ñuy assouplir ñu xool ni ñu koy defee mais progressivement mais quelque part relâchement boobu ngay wax noonu évidemment da nga koy sentir ci discours bi te loolu mooy explique li am ci mbedd mi mm. actuellement da ngay daw romb ci mbedd mi gars yi dindi nañ masque yi mm-hmm. et ça c'est dangereux c'est population yi war nañ jël seen responsabilité parce que aussi si boo demee ci groupe ki yeeg ñi nit ñi dañuy dindi masque ba pare commencé waat les rassemblements Mm. et loolu jàpp naa ne c'est un peu dangereux faut que tamit nit ñi def seen prise de conscience personnelle. Mm. alors justement euh, Sénégal yi dañoo commencé démystifier lii di euh, coronavirus dafa commencé am sax déni de la part des des Sénégalais toujours par rapport euh, à à, à cette pandémie. Mm-hmm. donc ñu bàyyi la très rapidement nga analyser déjà par rapport au de la République ak par rapport aux médecins qui qui sont en mouvement d'humeur.